jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na euh, Baye Djili Père Birahim Ousin tey mbokk yi ñu ngi leen di nuyoowaat fii ñu leen di nuyoo ku ci nekk sa tur ak sant di leen baalu àq bu baax a baax a baax di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo am jégal yàlla suñu borom boole jégal Euh, Pierre ngi nii nag sa ci wàll wi Ousseyn ngi nii ci wàll wi tey nag xam naa ne dinañ waxtaan waxtaan boo xamante ne euh, waxtaan bu mucc ayib la lépp rek mu doon ci loo xamante ne lu yokk làmb la ndax yéen donc yéen a tax ñuy sonn te euh, li wolof naan doolay jën ndox doolay waykat public doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi Père Birahim maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar sama père sama xarit. waaw jërëjëf may auzu billaahi mina sheytaani rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani maa ngi nuyu yéen ñi nga toogal yépp ji li maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu Ousseyn euh, di nuyu Baba Basirou Basirou Diouf Cissé di nuyu suñu gan yi ak ñëpp maa ngi ak ñi seetaan yëpp daal eh, ku ci nekk maa ngi ñaan sama kàddu yi yàlla yàlla fekk nañ ci jàmm di ñaan sud bi tamit yàlla na yàlla def ci jàmm def ci ba li ñu fi wax tamit yàlla na njëriñul ñi koy déglu yëpp eh, te yàlla musal ñu ci accident la amin amin amin amin jërëjëf Père Ouzin maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar baa ji maa ngi lay fay di la delloo nuyoo di la fay di la sant bu baax a baax di nuyu suñ papa ji nga xam te ne mooy PBM di ko nuyu di ko jox wàcc waayam di ko sant di nuyu mbokk internet yi di nuyu ñuy seetaan di nuyu waa axlu làmb di nuyu mbokki àdduna di la delloo nuyu bi bàyyi ji Euh, waaw tey nag euh, bokk nañ ci ponk bi nga xamante ni moom lañ bëgg a waxtaanee ci première partie mbokk bi muy doon ponk boo xamante ni bu am solo la. ndax nag euh, wax dëgg yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ni daan ngeen ko waxtaanee làmb ji fi mu toll nii dafa jot ñu changé lu bari bari bari ci làmb. li tax ñuy changé nag lu njëkk lu wolof naan jën bu nëbee euh, ci bopp ba lay commencé euh, li koy waral mooy dañuy mën a changé waaye changé nañ li nga xamante ne mooy président CNG bi jële fi suñu papa président Alioune Sarr indi fi keneen koo xamante ne suñu papa la muy Bira Sène euh, tey nag bokk na ci ñu baree bari ñoo xamante ni ministre bi convoqué woon nañ leen laaj leen seen xalaat ñu waxtaan ceeg yu mel noonu waaye démb ba ma woowee Père Birahim Euh, xam naa ne ministre bi dalaloon na ko démb moom laay njëkk a bàyyi mu waxtaan euh, nettali suñu mbokk internet yi la mu fa jële woon démb ba pare wax président bu bees bi ban gis-gis la ko am la ci am père waaw jërëjëf euh, Djily baa ngi lay sant di la gërëm mm. ministre bi woo na ma daas bi ci boppam ndaw moom a woo ne ma ministre neen daf la soxla mm. ndax di nga mën a ñëw ma ne ko ah, kañ léegi mu ne ma léegi ma ne ko a ah, léegi day dans trente minutes day xaw a jàmp mm. waaw day jàmp bu ma ñëw jóge fii ak circulation bi ma ne ma kon nañ ko def suba à dix heures suba dix heures ma dem eh, bi ma demee wax dëgg yàlla recevoir na ma ak si ma ñëw taatama wan ma ne daal ku la fonk laa mm-hmm. ku la bëgg laa ku la am cër bu ma teg laa waaw parce que man tamit euh, comme ni ma koy waxee nii rek mm-hmm. du ma toog ci caméra bi jàkkoore mm-hmm. di wax loo xam ne moom bu ko seetaanee dina ne ah son per bii kat ndeysaan wax na loo xam ne amul wala de dama ko def moo tax ba mu ñëwee ak dama wan ma ne ma it wax dëgg yàlla ku la fonk laa ku la jox cër laa ku lay siiwur laa tamit say kàddu ci làmb ji mm. ma ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma déglu ko nag parce que kilifa bu la wooyee mm. euh, man laaju ma mm. dama daf maa woo déglu ma ma déglu ko ba xam mu di ma posé ndax dina ma question laaj ma ne ma loo xam ci lii wala loo xam ci lii wala loo xam ci laa wala loo xam ci laa mm-hmm. Mm-hmm. waxuma loolu dañu toog waxtaan mu ne ma wan ne ma ah man de làmb ji damaa xam ne comme dama ñëw ci ay defaraat làmb ji mm-hmm. dégg nga te actuellement tool nañu foo xam ne fii làmb kenn mënut dem bàyyi leen parce que yéene doyen yi te yéene ci jaar yéen toog te ñi bokk làmb yëpp boo gisee mënoon na maa dugg sama biro nag dégg nga fal ñi may fal teg ñi may teg te kenn du ko dindi loolu mënoon naa ko def waaye su ma ko defee c'est pas responsable hmm. li gën a rafet ma ma yaakaar ni moo gën a rafet mooy ma woo ñi ci bokk yëpp ku ci nekk ma woo la dalal la laaj doo waxtaan ak waxtaan ak yow wan na leen lii laa bëgg a def hmm. waaw ba fii ma ba fii ma toog nii sax waxaguma ne kenn laa nommé hmm. ba fekk da boobu ni ñaa ngi koy consulter ku ne ngi téléphone laaj gis naa mu ay téléphone sax di wax mais xaw ma la muy wax nag waaw mais daal am na ñu ko daal waxaguma may leen ma may leen ma ma yaakaar ne ko doon laaj kan la kan la kan la fi lay la fi war a teg ak mel noonu xam nga rajo yi ak rajo su ak rajo. ak télévision dañuy bëgg information. ku ko jëkk dañ jëkk ko am. mu wax daal résumé lu baax bëgg naa làmb ji teguwaat ci yoon dégg nga waxtaan na ma ak Baab waxtaan na ma ak kii waxtaan naa ñi fi ñëw ñëpp dama ñu bari ñëw nañ fi wooraale waxtaan na maa ñoom. Mm-hmm. wax naa leen tam euh, daal ne làmb ji dama bëgg mu teguwaat ci yoon ba nga xam ne bii eh, li ma bëgg mu dox yëpp dara loolu daal wax daal ba pare. dama ko dama ne ko ah loolu de monsieur le li nga wax amu daal lu ma ciy teg. Mm-hmm. waaye man nag xam naa bu ñu waxtaan bi dee ba ci kanam dina am sama xalaat yu ma la ci wax. Mm-hmm. foofu daal toolu woon nañ fa. Mm-hmm. voilà. mais xalaat bi nga ko war a wax ba tey euh, waxagoo ko ko. ci li ci làmb ak yëpp. waaw c'est kon ci ci làmb waaw moom xam nga question rek dañ koy moo tax may bi ma bi moom noonu nga ma ko posé noonu bi ma laajee. loo gis ci làmb ba nee na ko làmb ji itam laaju ma noo ci gis. waaye dafa ko ne man sama xalaat ci làmb ji mooy dafa am loo xam ne mu ngi dox ci làmb fekk dañu làmb du dox. dëgg la mooy Primo li fi njëkk am mooy dañuy jël dëgg teg sunu kanam. Mm-hmm. jël dëgg sunu kanam mooy fab loi nga xam ne ku yoon dal ñoo xam ne yoonal la dal. dëgg la luy ku ñuy tere dañuy tere yaa ko war war a waroo signé contrat boo xam ne bii contrat bi daf laa tere lii ba pare nga def loolu. Mm-hmm. soo ko defee ëllëg si bi la cee def amoo kenn ku la mën defendre parce que da ngaa lire contrat ba def na Primo mi ne bi ci topp mooy. manager bi ci boppam bu jàngul war naa ko jàngal mu firil mbër bi li ñu wax ci contrat bi mhm. ne ko lii lañ la tereel lii lañ la digal lii la tere lii lañ la may lii la la yoon may lii la la yoon tere léegi nag bu boobaa nga firil ko ko mu leer nañ ci a noppam bu boobaa bu ko defee moom moo tooñ boppam mhm. loolu war naa deñ mhm. parce que tamit leen nit war naa deñ dégg nga mbër benn manager yor juróom fukki mbër wala juróom fukki écrit bu ne nga am fa mbër écrit bu loolu daf war a jóge Mhm. parce que li war a jóge normalement kii école du bu ne wala bu nekk dafa war a ménager ñu ngi ciy ñëw dinañ ci ñëwaat léegi Ouzin euh, gis nga li per wax euh, fi mu toll nii làmb ju doon na loo xamante ne dañ ko war a defaraat ci liñ ko war a defaraatee bari na comme ni père wax ministre bi dalal na ñu bari ku ci nekk mu laaj la sa xalaat ak sa gis-gis euh, xamoon nga Bira Sène. Bira Sène daan naa dégg turam nag. Mhm. ndax déggoon naa moo yoroon CNG bu Kaolack. Mhm. waaye comme ni ma koy waxee. xam nga boo bokkee ci làmb ñu jël làmb teg ko ci sa loxo. Mm-hmm. su ma juumul war naa mën a yomb ci yow. Mm-hmm. ni ma war a mën a yombee ci yow mooy bu ñu jëlee woon koo xamante ni football lay def wala basket lay def. Mm-hmm. bu ñëwee xëy na peut-être am dina am yu bari yoo xamante ni da ko ci da ci am ay. da ko ci da ko ciy réer. waaye moom dafa bokk ci làmb. te xam na li làmb di dund dégg na li làmb manqué wala boo xam na ko. pour man pour mu defar ko. lu war a yomb la. te làmb ji fi mu toll nii li mu manqué bariwul. ndax defe naa ni comme dégg naa jam wax ko hmm. promoteurs yi ñooy numéro un hmm. ndax ñooy dem liggéey seen alal ñoo def ko ci làmb hmm. wooyu ay mbër fay leen ñu bëri kon defe naa ni diggante boobu noonu pour nga pour nga pour nga dafa fa làmb lu yomb la ndax promoteur bi li muy jooy mooy stade li muy jooy mooy visibilité li muy jooy mooy euh, sponsor defe naa ni loolu soo ko yombalee promoteur bi daanaka defal nga ko lépp soo jëlee jee mbër mi fay ko xaalis solo sponsor mu def visibilité bi daanaka def nga lépp mm. Mm. li ci des mooy ñu toog waxtaanaat seen biir ndax ñàkk yooyu amul ñàkk mm. waxtaan moo am kon defe naa ne bu ñu ko waxtaanee rek dinañ mën a jubóo te Bilal Sène mi moom defe naa ne su ma su ma su ma juumul war naa mën a jëmal làmb ca kanam ndax yàgg na ci te am na ci yoo xamante yu ci bëri daan na ko dégg kon nag yow boo nekkee ci mbër di dégg ne lii baaxul lii baaxul lii la ñu bëgg soo ñëwee war nga leen a fexe andi li ñu bëgg ndax nga mën a am jàmm ñoom ñu am jàmm làmb jëm ca kanam. am na solo làmb jëm ca kanam waaye xam naa ne euh, président Alioune ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax une fois. parce que bari na ci loo xamante ni euh, nit ki bu loo ko defalee donte benn fan la sax euh, war nañ ko ci mën a sant gërëm ko di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom gën a guddal fanam te mu ànd ak wér te xam ni ci njabootu làmb la bokk ba tey ba fi mu toll ni dañuy soxla expérience am ci biir làmb président CNG bi la wàcc waaye wàccut làmb mm-hmm. ba tey rek euh, Bira Sène ñu koy jaajëfal bu baax moom di ko wax bienvenue mu ñëw euh, waaye ci biir ñëw bi euh, bari na loo xamante ni ci làmb métti na trop bari na ci làmb loo xamante ni war nañ ko defaraat bari na ci làmb loo xamante ni war nañ ko mën a yeesalaat père Euh, nu mu tuddate euh, sama papa bi bi wàcc docteur Alioune Sarr euh, dafa dafa dàq yenn arbitre yi yenn làmb yu simple yu bëree bëri CNG bi dafa dafa dafa dafa dafa nangu képp kuy bëre si mbër nga nekk mbër nekk di bëre ci làmb simple bi da ngay joxe li nga xamante ne mooy mille francs ci làmb ñaawlu loolu tey dàq yi mu dàq Euh, ñu mel ni Sitor euh, ñu dàq ko Malick ñu aj ko ak yenn arbitres yi ñooñu fi mu toll nii Bira dina leen mën a récupérer waat ñu ñëwaat ci làmb waaw xam nga pour Bira dàq ba la ñu def ba ñu dàq leen mm-hmm. loolu ñoomu neen la woon ci seen biir mm-hmm. ñoom ñoo doon xàccandoo di dóorandoo mm-hmm. parce que ménager yi ca euh, arbitre yi ñoom ñoo daan dagg xaalis bi ñu jël di yóbbu CNG parce que ñooy dagg yëkkati na loxo def tere na lii def nañu lii def maanaam lu ñu def ñoo koy bind jox CNG. Mm-hmm. ñu calculer dagg jox leen. Mm-hmm. kon ñoom ñoo doon liggéey. Mm-hmm. ci seen biir liggéey boobu nag bu ñu nee ci seen biir liggéey ba dema dema dem ba ci biir ñoom ñu am lu ñu imposé ba ñu ko imposé CNG d' accord ci. d' accord ci ñoom ñu dem jubawuñ ci kàddu ba am ba ñu dàq loolu ci seen biir la parce que mm, am ndaje la mu ne woon ci seen benn mafia la mu ne woon ci seen biir. noonu laa ko mën a tuddee man. dégg nga li ma la wax ci kalaate ba affaire ba toj. ba affaire ba tojee nag ba ñu xuloo dem dàqante def ne loola ñoom rek ñoo ko xam ci seen biir. mais père est-ce que làmb fi mu toll. arbitre yi ni ñu nekkee ci làmb. nga xam ne sport de combat la mais risque la. risque bi moo ci ëpp. arbitre li ñuy kaas est-ce du loo xamante ne njariñ la ci seen CNG bi mais njariñ la ci ñoom parce que ñoom assurance lañ doon kaas. ñoom arbitre yi assurance boobu ba tey ñu ngi leen di jox ay ay bàyyi ndëggandiku bàyyi leen ba suba bàyyi leen ba ginnaaw ñu dem ba xam ni kat ah fii lañ mën a yem seen muñukaay fii la yem ñoom ñu mujjee ni ah ñun kat mënatuñoo def dara parce que nañ ñu may lii loolu est-ce que dàqe yoonu dàqe xaj nañ. waaw mais dafa rëy de. mais dàq dafa rëy. nu mm-hmm. mu rëy rëy gis nga ma ma yooyu ngay wax noonu. Mm-hmm. arbitre yooyu yàgg nañu xam ne ñoom ci seen bopp li ñuy def risque la. Mm-hmm. àtte ñaari mbër ak ak mbër ak li ci nekk ci biir làmb ak risque bi ci nekk yëpp ba ñuy arbitrer ñu ngi ci woon. dëgg la loolu mos cee jóg. ñun ñu ngi jaar ci làmb yëpp xam ne loolu mos cee jóg waaye dañ ko fulal lu bi ñu demee ba xam ne ñoom kat li ñuy def ni atte ñaar ay nit a ngi fay ay cent millions ay quatre-vingts millions ay quatre vingt te ñoom mënuñu ci am dara ci la ñu door a xool affaire bii ci la ñu door a xam ne ñun suñu assurance kat war nañu assuré suñu war nañu jox dara hmm. ñun war nañuy mos ñoom dañoo toog ba mu yoo xam ne ñun dañoo war a mos fi mu toll hmm. parce que c'est pas normal que ngay àtte ñaari mbër arbitre leen boo paree di am dix mille di am ay quinze mille francs hmm. ñoom ñu am ay cinquante millions ay quarante ay soixante millions ay soixante dix millions te dafa jaaduwul te loolu ba ñu ko waree xeex jële ko fi dafa yàgg hmm. mais nag loolu dindi ko woon dañoo dem a dem a dem ba maanaam garab gi di sax dindiwuloo ko dindiwuloo ko ba mu am reen ba am tam ba taxaw a dal hmm. dégg nga daaneel ko day jafe day jafe bu fekkoon ne garab ga a yomb faj dëgg la dégg nga li ma la wax xam nga foofu loolu dañ ko waroon faj hmm. li olof di wax weñ gaa nga yàqoo ca mbànjaxaan ca mbànjaxaan la dëgg la weñ gaa nga yàqoo ca mbànjaxaan nga hmm. fa mu fa mu tàng ba xam ko cur nga war koo lem hmm. foofu nga ko waaye moom nga bàyyi bu mu sedd nga door ko lem lemu boola bu day dama rek mu ngi mel ni car bu tëb tëb dëng dingaloo ko ba mu tax ba tig ba dëgër boo ko jël tey day day damm loolu moo indi coow li am seen bii Birane nag pour a defaraat loolu dégg nga du moom rek moo yor làmb ji Bira moom bala ma ci ñëw tëdd. Hmm. xam nga laaj Bira laaju ko man Bira xam naa ko. xam nga ko xam naa ko mais sama xam du soriwu ci. Hmm. parce que xam mooy lan. Hmm. dañoo bokk mu nekk CRC bu Kaolack. CRG bu Kaolack nekkoon. dégg nga li ma la man copte ministre bi copte ma fii ma bokk ci ñi nga xam ne chaque trois mois dañuy dañuy woote réunion. ñu bokk toog ci waxtaan. dégg da daan ñëw. man gis naa ko mu ñëw ba tàyyi toog dégg li ma la di yow ñuy toog ñuy réunion. mais gisoon naa ni mu mel ak Alioune Sarr bi tamit gis naa ko. Mhm. ca biir xaw ma mais ci biir li muy wane zahir bi nii. Mhm. da doon défendre Alioune Sarr. Mhm. lu Alioune ku tudd Alioune mu jóg ci kaw wax daal ci kaw maanaam toujours daal wane ne moom nitu Alioune Sarr la. nitu wane woon na ko carrément ba ñëpp ñu doon doo xam ne ne Bira nitu Alioune mais man ba ñu ne ba la fal rek man xamoon naa ne ku mel ni Bira mën na yor làmb waaye nag xam waaye dafa ma un grand mais ci am. gis nga grand mère waaw grand waaw xam nga tubaab lu mu ne la mais rek. mais delluwaatal xoolaat xoolaat ah, loolu tax nga jili su ma ñëwoon ne la sa bi rafet na. mais mais rek am na foofu foofu wala am na lu wér am na benn sikk. maa la wax téere laa la wax. man waxuma ko contre. Alioune Sarr sama <laughs> kilifa la sama mbokk la li mu bokk ak man. peer bi laay dëgg la danaa li mu bokk ak man. Uh-huh. ci biir CNG bi bokk ko fa ak kenn. déedéet grand frère bi mu bokkal ndey ak baay. Mm-hmm. jabar ji papa am ak sama maa bokkal ndey ak doomu grand frère yi suñu ñaari maam bokk ndey ak kon man dama koy wax tout le temps fu ma toll man kilifa nga ñaari yoon ci man mm-hmm. kilifa nga ci làmb ji kilifa nga man ci ci bokk gi mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la mm-hmm. mais du tee dëgg ma ko gën a ñëpp dëgg la dégg li ma la wax su fekkee ne léegi moom jóge na fi tey gars yi manager comme naan nañ fi jóge tey na fi jóge xam nga dañ fi jóge tey dafa dem vingt six ans naan sénégalais moo bëggul lu yàgg ci bëtam Sénégal mooy naka njëkk moo da nga gis koo xam ne baax na mu ngay xew mais yàgg yàgg na ci bëtam ñu jële ko fi mais bi ñu ko fi jëlee indi nañu kenn koo xam ne kii problème la mooy Bira. Bira moomu problème la man maa koy wax dëgg la. problème Alioune Sarr problème maa ko xam parce que damaa toog ñoom rek ñoom ba tey gis ni muy défendre Alioune la. Hmm. am na koo xam ne kii boo toogee ci mbooloo mu dee défendre su boo génnee nga xam ne kii sa nit la. dëgg la dëgg la wala fen la waaw waaye bu ñëwee tamit Alioune génn na waaye ay am rek a fa nekk na. Manga de foo ko tudd tudd Alioune Sarr dëgg la wala fen la. dëgg la mm. Bira Sène foo ko tudd tudd Alioune dëgg la. ak ñeneen ñooñu encadrement boobu ñooñu nga tudd ñu ne ñëpp ay nit Alioune lañu. Mm. kon tey Alioune Sarr génn na mais loxoom de mu génn maanaam génn na ci tournée ci signature du président ba. Mm. mais moo moo fa ne ba tey daanaka. ndax loxo ma nga ca biir. loxo nga ca biir ñëpp ne ñëpp kam ku ñu fa teg te leen Khalifa Sow kenn kenn Alioune Sarr kenn mu leen tànn. déedéet léppam la doomam moo fa nekk. dëgg la njàmme moo fa koo xam ne ministère ñoo ko tànn indi ko foofu parce que njàmbi euh, euh, kii la quoi euh, agent agent kii la agent d'état la. Mm. ñoo ko détaché indi ko foofu. Mm, indi ko foofu ña fa nekk ñëpp cuun moomu ko ko daal sax. man tam damaa yàgg ci làmb ji plus de 40 ans maa ngi ci xam ne ñoom ñëpp ci lañ ma fekkee itam ñoom ñëpp ci lañ ma fekk ñoom nekk ci yëpp ci làmb lañ ma fekk ba ma màggee ci tey xam naa li may wax mm-hmm. man du ma wax pour contre nit du ma wax de waaye dama ne Bira mm. pour bañ a manipulé wax mi dama ne la Bira ci boppam bu fekkee ñëw na doxal dëgg gis dëgg lii dëgg mu jaar ci lu dëgg du ma ci ànd. Hmm. day làmb ji day dox. waaye bu fekkee dañ ko teg benn yet boo xam ne dañ ko dem teg fële toog fële def ko benn yetu xeexukaay boo xam ne bii ku ñu bëgg a duma ko dumaal diw mu duma diw kaataal diw ko dompal diw kaataal diw mu diw diw duma diw mooma hmm. ah di nga déggaat coow lu rëy xam ne di nga ne père bi daay waxoon na ma hmm. la wax lii am na solo Ouzin dégg nga li père wax euh, ban gis-gis nga ci am waaw ah, gis-gis bi ma ci am mooy ni mu ko waxee moom ndax bi Assane dafa ñëw ci loo xamante ni nii lépp coow koy doxal. dugg na ci coow de. waaw ndax dafa dafa nekk loo xamante ni nii promoteur yi tëgg làmb sax bu làmb ji amul coow duñ ko bëgg. amateur yi seetaan si làmb bu làmb ji amul coow duñ ko bëgg. Eh. mbëri tamit bëgg nañu am coow. ba tax na moom mi nga xamante ni moo yor CNG bi. Mm. moo yor mbëri maanaam moo jiite ñëpp. dégg na avant mu ñëw coow la ci amoon bi mu ñëwee coow la ci am te après coow mooy amaat. Mm. na yemale ñëpp. Mm. jox ñëpp seen cër. ku ci nekk la warloo ak moom mu def ko ba mu mat. Mm-hmm. su ko defee jël lépp teg ko ci yoon. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee bañ a jiital parparloo gi ci am. Mm-hmm. defe naa ne dina ci am loo xam te ne dina kawe njortam. ndax làmb tamit lu ko doxal lu ko doxal yomb na. lu ko doxal yomb na parce que li ñuy kaas. ci làmb la bokk. boyal fourne andi bidon di litres. dañ ne woon dañoo àbb ay stade am na suñu stade bopp nañu bàyyi suñu di litres. nañu bàyyi suñu fourne ñu jaaru. nañu bàyyi mbéy ñuy dongale di tase. di dëkkante làmb ji di neex. Hmm. mais imagine nga ñëw ci làmb toog mbër mi ñëw dugg tuus dem toog ci mukaayam. Hmm. balaa nga koy gisaat daawoo dugg ci digg géew bëre ñi nga xamante ni ambiance moo leen andi ci làmb ñooñu ñuy def. Hmm. ñi nga xamante ni bàkk moo leen andi ci làmb ñooñu nu ñuy def. ñoo moo ñoo ko moomoo suñu bopp dañoo dem ba ci àll ba dagg fa la nga xamante ni moom lañ fa soxla. la fa des ci espace mën na génnee ñaari stade wala ñaari stadium. nañu bàyyi mbër ñuy défulé wu ambiance dafa bokk ci làmb. boo demee làmb séeréer amateur beeg supporter bi journaliste sax bu la neexee nga jóg tous. Mm. benn policier du la wax kaay nga toog. Mm. da ngay gis kuy seetaan ba ci yàgg yaramam tàng mu jóg fecc mais da nga naan lii fii rek la am. Mm-hmm. te làmb ji 100 dañuy ñëw dañuy ba commencé 4 heures ba 20 heures te làmb ji du toj. Mm-hmm. mais bu fekkee nga andi 20 ku ci nekk nga ne ko yemal fii mais làmb ji neexatul làmb dafa am culture. Mm. culture boobu ci nekkoon nañu ko bàyyee. Mm-hmm. ndax ñu ñu mën a dund làmb ñuy dund sport ñuy dund football ñoo ngi ñu demee ci kaw tribune leen toog jouer football pare dem ñibbi mais ñu dañoo bokk ci làmb journaliste bi daw gis mbër mi dëkkante nga nga am ci li nga bëgg moom mu neexal mais loolu dafa bokk ci làmb yi ci nekkoon lañ ci war a delloo mu neexaat fexe nu ñu àndee sponsor yi ñu ñëw amateur di ci gis seen bopp di seen làmb yu neex mu yi di tëgg di ci génn mbëy di bër bëy di fayeeku xaalis lamb ji neexaat loolu kese la mm. xoolal léegi mbëyu ndaw yi ñëpp voyagé nañ parce que gisatu seen gisatuñ si seen bopp mm. benn tim mooy am ñooy bëyee seen biir di daanante mm. pour lan loolu ba kañ dañoo soxla leneen lu bees ñu changé ñi nga xamante ni mooy président CNG bi noonu lañ bëggee grand compte petit bi am lamb yi bàyyi jaxasoo xool gii boodoo mu bëri pour lan ñu doon bëyee seen biir ñooy bëyee Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène Lac de Guiers Modou Lo Ama Baldé ba loolu moom classe jamaïcain ji ñoo ci war a jóg sa xam naa ne seen gafaga amul dara boo leen làmboon fi mu toll nii mooy loolu euh, sama combat lañ mën a tëgg man a sëñ Bassirou mais per mm-hmm. dafa am beneen gis-gis boo xamante ne am naa ko mm-hmm. ci ci ministre bi. Mhm. Euh, ministre bi dafa dalal yenn mbër. Mhm. Euh, oh. dalal yenn mbër. waaw euh, ñenn ñi boog wala boog benn mbër. Mhm. parce que su ma juumut Gris Bordeaux rek laa gis ci moo nekk lutteur boo xamante ne mu ngi nekk en activité. ministre bi dalal na ko. bu fekkee dafa dalal ñeneen tamit yëguma ko. te buggumaa wax loo xamante ni wóoruma. père mu mu mel ni am na ci mënul dalal ñëpp. mais mhm. mu mel ni am na ci ñoo xamante ne ay acteuru làmb lañ. Mhm. parce que làmb munoo ko tudd doo tudd Eumeu Sène doo tudd Balla Gaye doo tudd Modou Lo. Mhm. doo tudd Tapha Tine doo tudd ñooñu noonu nga xamante ne ñu ngi ci bopp bi. Euh, promoteurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy bailleur bi ñoom ñooy dem wuti seen ñaar fukk ak seen fukk ñëw dugal ci làmb. père mu doon loo xamante ne lu metti la ci ñoom te damaa gis ni euh, maa ngi ko doon wax ci jamonoy Covid bi. gis naa ku nekk woo nañ la. yëkkati li nga xamante ni moo xam mu néew ak mu bari ba ñii musiciens yi sax am na ñoo xam ne jot nañ ay quarante deux mille ñii jot nañ cent mille yoo xamante ne aide la bu jugee ci état ba tey gisuma lenn loo xamante ne jugee na ci ci ci état jëm ci promoteur làmb wala mu jóge ci ci état jëm ci ki nga xamante ni mooy mbërub làmb euh, mu mel ni kon wolof li wolof naan mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk mu mel ni làmb fi mu toll nii am na beneen étiquette bu ñu koy tafal bu bokkut ak bëgg gi yërëm gi jël xale yépp ñu def leen comme doom jàpp leen indi leen ci làmb boo fi nga xamante ni fa lu ñu bëgg làmb toll fa tolluñu fa kon xam nga bu baax fi ma waxee. Mm-hmm. léegi loolu noonu bu amee fi mu toll nii ban gis-gis nga ci am actuellement fi làmb toll parce que boo xoolee Siteu euh, Papa Sow doonoon na combat boo xamante ni ñu war a bëre bi gën a jege ci date yi. soq gàmmu gay noonu te ba léegi fi mu toll nii pour man ndimbal boobu waroon na mën a jóge ci état ñëw ci làmb kon ndimbal boobu bu ñëwul ci état ba tey ñuy coow ay mbiru CNG ñuy coo ay mbiru. Euh, arbitre yu ñu aj ñuy coow ay mbiru sponsor est-ce que état bi jotul dëgg-dëgg per mu jàpp ci lamb waaw jërëjëf euh, déglu naa dina am question am na benn bu ma tëboon nga may ma ba fekkee may ma ma delluwaat dama ko fàtte woon mooy ñii dugg ñi di leen laaj billet ci lamba bappa di laaj mille francs waaw euh, xam nga tey jii par exemple am na ñoo xam ne ñi hmm. rëg-rëg est-ce que bu dugg see dañ ko laaj mille francs mu door a dugg ah yaakaar naa ñëpp lañ ñu laaj. am na ñoo xam ne ñii. dañuy xam ne ñii dañuy bëri si. dafa am mbër yoo xam ne ñii ay ay ay ku mel ni ay Ngel Jonna ku mel ni ay ay Bébé Diène ku mel maanaam champion yooyu nga siiw. ñooñu nga xam da ngay yàkkamte ñëw sa lamb bu neex sa lamb neex ñooñu nga xam ne na wala diw na wala diw ñëw na wala mhm. kii mbëri mhm. dañuy dagg mhm. na ñu daal dagg seen billet ñoo dugg ñooñu koy doon laaj mille francs mais père est-ce xam nga ni ñoom ñëpp dañuy dagg mille francs mais am na ci promoteur yoo xam ne dañuy woo ku mel ni Reug Reug téléphone ne ko sama lamb ji maa tëgg muse bi temps laa teg ñëwal yónnee ko paas vingt mille wala quinze mille wala dix mille francs pour mu ñëw bëre dinañ ko defal ay mbër yu bare bare bare voilà loolu moom xam nga bu amee tamit du la weddi parce xëy na secret bu ci seen biir la loolu man xaw ci dara mm-hmm. parce que man waaw d' accord moo tax du ma la weddi mm-hmm. parce que nit ki boo la wóorul bu ko weddi dëgg la man fekkee ma xaw ma waaye dama ne mbër mi am tur da mm-hmm. ñun da dugg loolu moo daan am sagal la ko ko dalaa ñëw koo àndal mu ne diw nga dugal ko ñooy dugg ñoo am na ci ñoo xam ne ñi nag boo gisee ñu dem ba laaj bi làmb ji day fees ba ñëpp toog ci suuf te ñooy na du ñu bëri mhm. ñu xam ne làmb ji nii mu fees te ñu bëri moo tax ku ñëw indi sa séer nga wax mu ne am sa licence nga war sa licence licence ku ñëw ñu defaral la mhm. léegi ngay yow sëb séer ne damay bëri nooy def boo ñëwee lal séer bi toog ki ba làmb ji fees del ñoom nag bu ñu nee ba remarqué loolu nag la ñu ne ah ñun ñii léegi dañu fexe kuy dugg dëkk na nga dagg bii maanaam mise boo da ngay teg maanaam sa participation loolu moo indiwoon moo indi laaj biee yi mm-hmm. laaj fay mais mbër war dugg ci làmb daan nañ ko fayal biee door a bëri mm-hmm. fay loolu loolu laalu moo tax ma tëboon mm-hmm. ma leeral ci am ci éclairci bu ma ci doon def noonu dëgg la yaa ngi dégg après léegi beneen bi ma ñëw ci am na beneen booba laaj euh, waaw promoteur yi ne lu gouvernement bi war a dimbali dama lay wax maa ngi nuyu Cheikh Tidiane Mbaye de passage mooy ki nekkoon directeur général Sonatel. Mm-hmm. dañu ma soog bureau mu wax benn wax mu ne Sonatel su ñuy dimbali dañuy dimbali Sonatel dina dimbali mais da ñi nga xam loo xam ne Sénégal ñëpp koy bokk. Mm-hmm. maa mais du ñu dimbali individuellement. Mm-hmm. yow tey nga am sa cent millions wala sa cinquante millions wala jamaïcain mu yor cinquante millions dem tëgg làmb ba tëgg ñaan bu def ci poosam. la plupart état du leen dimbali. parce que li muy liggéey boppam la ko liggéeyal boppam la. mais bu fekkoon da koy def loo xam ne lii pour mbooloo pour Sénégal yëpp kii jël. maanaam da ko def ci football bi wala def ko ci loo xam ne lii maanaam Sénégal ko bokk hmm. loolu boobu mën nañ ko sponsoriser moo tax dafa ne woon Sonatel sponsoriser mais de bu lu ñëpp bokk comme équipe nationale loolu loolu Sonatel dina ci def loxoom hmm. Cheikh Tidiane Mbaye moo lii te bu liiree lii hmm. dina xam ne maa toog bureau mu waxante ma lii ci la te loolu nag état noonu lay dundee état dinañ dimbalee mais ñoo muy dimbalee dañuy dimbale loo xam ne Sénégal yëpp ci bénéficié wu moo loolu tax promoteur bu soxla combat rek bëgg a tëgg combat rek ñu daal di ne léegi ah boo demee gouvernement bi jox la cent millions wala jox la cinquante millions ah bu amee jafe na te loolu bu amoon léegi nga léegi nga teg fi micro bi dem tëggi làmb léegi nga teg fi micro bi dem ne man promoteur la wut say kayit ñu jox la cent millions nga ne da ngay tëgg say làmb am déet moo tax may la promoteur bu ci am buñ ciy jox xaalis ne pour ne la état yaakaar état pour mu jox la xaalis nga dem tëggi làmb hmm. wala suq wala suqali ci mbër ah ne moo du am mais lu jafe la hmm. lu jafe la promoteur yi nag fi may jeexale mooy ñoom ñoo war a ànd nag nekk benn yéenente jàmm am na ñaari association promoteur voilà xam nga loolu moo jaadu li jaadu man li ma jaadu sama gis-gis mooy ñoom ñëpp ko jiite bi Pape Abdou Fall ko jiite voilà moo tax te ñoom ñëpp nag ñoo bokk bëgg-bëgg mhm. ñoom ñëpp ñoo war a ànd nekk benn su ñu xësee dox benn combat boo xam ne bii ña ak diw dëgg na ci ba pare fekk combat boobu ñoo ñu toog du tare yow man duma ci waxati mhm. waaye da ngay ñëw diw de fay naa combat ñu ne waaye kooku fay ma diw fay ma nangam wala diw jaar ci suuf ne la bul bëre dangam diw da jàll mm. wala nga tëgg combat ñu ne la ak ah, combat bu da kooku de mën laa dir ñaari kaar daal lay influencé xeexante boobu ci biir ménager bi nekk ci biir ménager yi nekk ci biir làmb ji nekk ci biir mbëri moo tax combat yi benn groupe rek li Ousin wax dëgg la benn c'est pas normal que benn groupe rek di bëre ñeneen ñi duñu bëre ah, te loolu mu ngi xaar Bira Sène mm. en tant que président CNG ñu jox ko te mu war a defaraat làmb ji loolu daf fi a jógee loolu jëlee ko fi nag lu jafe-jafe-jafe la parce que Ousseyn bi yor xaalisam yori million ne de jiili ak gëm samay kay moo ma neex ñooñu laay tëgg. Mm-hmm. moom laay fay kenn mënu ci tous. ki bëgg ne man Modou Lo laa samp moom laay bëri loo ci man ki moom laa bëgg moom laay wutal loo ci man moo yor xaalisam mais mais loolu CNG bi war nañu toog waxtaanal ci bu baax a baax mm-hmm. waaw parce que koo ne kii kii laa bëgg kii ne man kee laa bëgg nga ne kii laa bëgg kii ne man kee laa bëgg mm-hmm. du bëri kii kii kee laa bëri fu laa ji doxee du dem moo tax liggéey bu rëy koy xaar Mm. boo xaar xaara xaar boo xam ne bi foog ñëpp jàpp ci fi may jeexale mooy moom it mu ñëw tëddee njaaxaanaay bañ ba ma sàmba amul séeréer amul waalo waala amul ka joolaa amul tukkulóor amul kenn ñëpp laa jabootee. képp ku takk ngem rek ma làmb daal sama njaboot nga bokk ñëpp laa bokkale ñëpp laa jàppale. waaye boo caree fii kër fii wala ñu def la benn yet di la xeexe kan diw naa ko ku lay mën a diw bu ko laal de kooku dama bañoon wala dama nangoo nii dama contre ànd wala mënoon dama daa xeex mm. ah, laa ñaar ñaar dootu du fi jërëjëf Pierre Birahim Ndiaye euh, Ouzin sa kàddu bu mujj lan la sama kàddu bu mujj dama koy wax lenn rek mm. moom Bira Sène mm. dama naan ko na tëddee njaaxaanaay te jege askan wi su ma nee jege askan wi maanaam jege njabootu làmb mm. ndax làmb dafa bari coow gis nga jili euh, soo nekkee meeru koñ su fekkee da ngay xëy jóge sa kër dem sa bureau wàcculoo ci terrain bi xamuloo lan mooy xew ci dëkk bi mm-hmm. mais saa ba wàcc ci terrain bi di dox di dem di jël oto di nga xam ñu ñi ñi dëkk ci gox bi lu ñuy dund. na ubbi ñëpp ay buntam ku ko soxla mën koo gis gis ko soxlaa. Mm. mu xool li ci jaadu waxtaanee ko ñoom ngi ko seqal. Mm. saa bu ko defee rek am jàmm waaye saa bu tëjee ay buntam ku ko mën a jot doo ko jot. Mm. bu ñu gisee fuy metti duñ ko ko mën a wax wala boo ko waxee du ci jot. problème day daal di am. na ubbi ñëpp ay buntam oyofal lépp te xam ne àdduna dara du continuer am nañu ci bëri ñoo xamoon ñu ci bëri ñoo xam ne ku leen waxoon ne Alioune Sarr dina dem ñu ne la déedéet malgré ñoo ko doon jot mais ku leen ko waxoon ñu ne déedéet mm. te xam ne ëllëg mën na fay jóge keneen ñëw mm. te àdduna loo gis lu nekk continuité moo ci moo ci baax comme que gis ne Alioune Sarr def na fi 26 ans xam nga 28 ans andi làmb ba fii na xool fa ko yemale mu jéem koo jëlee fii yóbbu ko ci 30 ans wala 35 ans mm-hmm. ndax bu fi jógee ëllëg ñu mu def fi lii keneen ki ñëw tamit xool fi Bira Sène yem mu jëlee ko fa yóbbu ko feneen mm-hmm. loolu daal laa am lu ma koy wax moom Bira Sène mm-hmm. jërëjëf mu nekk kàddu yoo xamante ni lu am solo la euh, parce que ne euh, a yaatu xam nga rek euh, yéen a ma gën a xam am na ñu ma doon sàlli xeer barki démb <laughs> naan ma jàpp sant rek cinq minutes <laughs> loolu laay daw Père Birahim kon ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw waaye man am na fu war a jeexale. waaw waaw tamit. parce dafa am conseil yoo xam ni comme li Ousin wax. Mm. Euh, loolu duma ci dellu parce que ñoo bokk xalaat ni mu xalaate noonu laa xalaate mm. te dañ jaaxaane ay boot ñëpp yaatal ñëpp. Mm. dégg dugg ci nit ñi déglu xalaat yi nag. bañ a wut noonu mm-hmm. a parce que ñëpp mënuñoo ànd ak yéen kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. tey jii ñu ngi ne di ko am ñu ko di ko baatala ko def te am na waxtu wala may waxtaan ak docteur Alioune nag mm-hmm. maa ngi koy nuyu di ko passé di ko félicité nag mm-hmm. ci yi mu fi nekk yépp ba jóge fi ci jàmm ak salaam la mais bu mu mere kenn parce que damaa dégg ci benn journal bu mu bind bu ñu bind moo wax ne xaw ma baale naa waaye am nañ mais ñoo xam ne ñii du leen baale am na ñu muy tëkku ma ne ko bu tëkku kenn docteur bu tëkku kenn baaleel ñëpp Mm-hmm. bu leen tooñee baal ko te yàlla tax mm-hmm. bu leen defee loo naqari loo xam ne jaaroon na fi loolu rek a leen boo làmba boole woon su du làmb du ngeen daje fenn mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ay mbër lañ ba làmb jeex na ay coow yu amoon seen ñoo xam ne maa ngi xaar parce que naa am na ñu ma baal waaye na ñoo xam ne ñi ba def su trois euh, trois points suspension yooyu mm-hmm. Alioune sama kilifa nga mm-hmm. dama lay wax nga jéggale mm-hmm. te baale parce que àddina dafa gudd tànk de tëre dëgg la dëgg la àddina dafa gudd tànk te dafa tëre lool dëgg la tey ñu bari tey jii tey jii ñu ngi woon ca ginnaaw tey ñu ngi ci kanam wallaahi ñu bari ñu woon ca ginnaaw tey ñu ngi ci kanam wallaahi Bira Sène dañ ko daan woo muy jógee Kaolack paas wala bu jëndi paasam ñëw fii réunion di toog toog ca banc yi ca ginnaaw ci ñun lay toogandoo léegi mooy toog fa Alioune Sarr daan toog moo tax may attention nit ñun ñëpp mooy xale mooy mag nañ jéggalante baalante te joxante loxo te xam ne lii sport la rek demul àllaxte demul fenn fii rek la yem wallaahi day jeex li ci kaw na rafet jégalal ñëpp Alioune dëgg la fàtteel tourné passe bi rek xam ne loo waroon a jaar la dëgg la mooy loolu loolu mooy benn ndomba tànk du laal suuf waaw ndomba tànk bu nit tekki rek nit takk na ko waaw ah, mu ngo jërëjëf Père Birahim euh, yàlla na fi ci yàgg loolu te wér ah. mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb ji bàyyi jiili Père Birahim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 cuuna rëy ma juum waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii